ngeen woote si 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ah lii am lépp tawfeex ci sëriñ bi mën a may. gën mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen dalal ci jotaay bu tedd bii di am mbégte lool ci eh, gis leen ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay. di leen gën a soññ bu baax di wax ne jotaay bii nga xam ne moom lañ organiser nii jotaayu xam-xam la waaw jotaayu la ndax bu ñu waxee jëmmi pàkk bi nga xam ne mooy daru Koso benn siyaar bu am mooy symbole bi ñu koy xamee mooy xam-xam xam-xam boobu nag moom moo ñu wommat ci ñu organiser waxtu wu ne wala at bu nekk ñuy ñuy amal jotaay bii nii ñi ngi leen di soññi ne jotaay la boo xam ne xam-xam dong moom moom moom rek moom moo ko moo ko sos dara sosu ko ñi ngi ziyaare bu baax kilifa gi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadul Mokhtar ñi ngi koy ñaanal bu baax suñu borom sàmm ko te yàggal ko fi lool te wéral noonu lañ koy ñaanale njaboot gi yépp ndax moom waxtu woo xamee ne eh, jotaay bi dëgmal na bañ woo ko kaddu gi mu ñuy jox benn mooy day wax ne moom day activité xam-xam la te lu mat lu mat a suuxat la lu mat a téye la itam waxtu wu ne ci loolu lañuy ñuy ñaax ci la ñuy moo waral nag waxtu wu ne ñu ciy amut fit te di ci ànd ak confiance bu baax a baax di ko di ko taxawee waaye ñi ci gën a soñ mbokk taalibe bi yépp ñu gën ko yittewoo bu baax a baax a baax yittewoo pàkk bi ndax pakk bi di Daaru Kosum bu ci xam-xam jógee dara desatu sëriñ Mahmoudan ay activité am yépp xam-xam loolu moom xam-xam rek lañ ko xame moo waral képp ku koy wooteel la war a njëkk jiitu ca woote ba mooy xam kon ñi ngi leen di wax ne jotaay bii nañ ko gën a yittewoo mbokk taali bi nañ ko gën a yittewoo ñu ngi ci soñ ñëpp waaw ñu ngi ci soñ ñëpp te di leen wax ne buñ buñ buñ koy waajate ñi ngi soññi mbooloo mi ci ñuy teew bu baax ndax liñ leen soñ soññi bari ci lu mel nii nañ gën a yittewoo euh, waxtaan bi bu baax ndax sëriñ sëriñ Muxtaar bi nga xam ne mooy xalifa bi moo koy soñ soññi activité xam-xam la te xam-xam mënuñoo am jotaay yu ko gën ci kaw suuf moom mooy lépp ci lay nit di gindikoo ci lay nit di mën a wommatee boppam xam lim doon kon faw rek ci lépp looy jiital danga ciy jiital xam-xam kon ñi ngi leen di soññi di wax ne màggal gi yëpp amuñ jotaay bu ñu gën a ñor ci jotaay bi ndax dañ koy def ngir jëm sëriñ Mahmoudan fàttaliku sengul bu mu doonoon njabootu sëriñ Mahmoudan gi yëpp ci eh, ci ñëpp rek nga xam ne ci seen kaddu la ñuy waxee ci turu daayira bi ñi ngi am mbégte ci mboolem koo xam ne teew nga xam naa ne tur yi dina naqaree lim lool waaye sëñ Mouhamed dina ci ñëw ñu ngi leen di sant bu baax di am mbégte ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun jotaay bi ci waxtu bu nekk di leen ñaanit ñu ànd diglu bu baax sëriñ Abdul Xudus ibnu sëriñ Basiru Abdu Anta Ñang ñu ngi koy dalal bu baax moom it muy boroom xam-xam bu ràññeeku boo xam ne ñi ngi taataan ay kàddoom te am nañ yaakaar ne képp ku diglu di nga ci jariñu ndax jotaay la boo xam ne ñi ngi ci àndal ñi ngi leen di segg bu baax bañ ko tàmbalee ba léegi rek képp kuñ ci àndal sa xam-xam dañ koy segg bu baax te dañ koy natt ci ay critères kon ñi ngi gën a soññ mbokk taalibe bu baax di leen wax ne daal lii moom maanaam activité activité la bu ñu ñor lool ñor kilifa gi boo xam ne bëgg nañ koo saxal bu baax di ci gën a soññ mbokk taalibe yépp képp ku ci daan dugal sa loxo ñi ngi lay ñaanal suñu borom gën laa kattanal gën la ko man loo waaye képp koo xam ne itam dawuñ la ci gis ñi ngi la ci gën a soññ bu baax ndax moom rek lañ am te dañ koy defee ci ndigalul kilifa gi ñi ngi leen sant bu baax a baax a baax njaboot gi yëpp boot gi yëpp njabootu sëriñ sëriñ mahmudan gi yëpp ñi ci kaw ba ci suuf ñi ngi leen di sant ci seen tur la ñuy waxee ñi ngi sant mboolem mbokk yi nga xam ne teew nañ fi di leen ñaanal suñ boroom fay leen yiw lool ci baaxub sëriñ Tuuba wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu auzu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a sell bàyyi ci turu mbooloo mi ak turu bokk yépp ci bokki dëkkandoo yi bokki taalibe bokk yi nga xam ne dañoo jóge ci ay barab yu faccanti ko ñu ngi leen di nuyu ci turu mbooloo bi te di leen sant itam bu baax a baax waaye di jiital sunu kàddu nag sëñ Moxtaar mi nga xam ne Cheikh bi wax na ko léegi liggéey bi def ko yitteel bu baax a baax ba ku amub seetlu rek xam ko ci moom ak jëwriñam yi nga xam ne ñoom la seqal dëkk bi yépp ak bokki taalibe yépp itam di nuyu ak di sant bu baax a baax cant koo xam ne ci ñoom ñoo ñii la tàmbale Sëñ Abdu wax na ko léegi at mu nekk baaxoo nañ di ko def buñ a toll fii ci wàccaayu màggal gi am loo xam ne nag ca yoon wu njëkk wa sëñ Moxtaar santoon nanu ko ba tax na ñu di ko sàmmonteel boobaak léegi loolu nag moo tax waxtu wuñ ci tollee rek danañ xool bu baax a baax jëmm ji nga xam ne moom lañ fi indi mu doon koo xam ne ay waxam lu ñu mën a dégg lay doon lu ñuy mën a jariñoo lay doon itam loolu moo tax mbokk yi amoon yéene yi ànd ak sëriñ Abdul Xuddus bi ñu waxtaanee ak moom itam mu jàpp jàppandi lool te ànd ceeg ak bëgg ak pëstéef te sax loolu yaakaar naa buñ demee ba ci biir waxtaan wi danañ ko gën a danañ ko gën a danañ dana ci gën a feeñ dana ci gën a fes ci yitte jim ci àndal mu dëppook li nga xam ne moom la war a waxtaane mi ngi war a waxtaan nag loo xam ne lu mat di waxtaane la te moo di yitte ju kawe wala yitte rek ndax kat dama jëlale sax ab jullit waaye doomu aadama ja rek doomu aadama rek juy ju bëgg a am ak jariñu ca la wut yitte lay jiital kay def loo xam ne sax xëy na lu yàlla tere la yitte ju mat sëkk la koy jox ka nekk ca fomo yitte ju mat sëkk la koy jox kon nag yow jullit bi yitte jooju war ngaa xam mooy lan foo ko war a joxe loo war a jox yitte nga jox ko ko ak fan lañ gën a soxlaa yitte jooji am na benn benn waxkat bu ne woon yitte moom mooy rek sa benn tànk day tegu ci suuf si sa beneen tànk nekk asamaan am na itam borom xam-xam bu waxoon ne euh, yitte jëmul rek ci li ngay lekk li ngay naan li ngay sol ak fi ngay dëkk wala ki ngay nekkal ni ki soxna loolu yitte ju suufe la yitte bakkan la yitte àdduna la ginnaaw yitte bakkan la nag yitte àdduna la nag kon loolu yitte ji suufe rek la waaye mu a yitte ji gën a kawe ci yitte yi mooy yitte joo xam ne euh, boroomam moo ko tax a jóg te loolu mooy yitte ab jullit moo ko war a doon moo tax imaam Malik doon wax ne radiyallahu anhu na ngeen di jéem a yittewoo la gën a kawe ci mbir yi te gën caa baax tey moytu la gën a suufe te gën caa ñàkk solo ndax yàlla kat li ko gënal ci mbir yi mooy la gën a kawe waaye lim gën a bañ ci mbir yi itam mooy la ci gën soofi suufe Cheikh Abdul Xaadir Jilaani waxoon na benn dongam ne ko maa ngi lay denk ak lu man di xew rek bul def sa yitte muy looy lekk wala looy naan walla looy sol wala yu mel ni ndax yooyu yëpp itti àdduna la ñu ko waxe woon léegi kon ngir bañ a guddal rek damay damay damay daal di daal di euh, gàttal ngir si Abdou Xudoos dana gën leeral xanaa rek am na benn benn jaam ñu ko mën a waxe ci jamono yu njëkkee koo xam ne yitte ju kawe jii ñuy waxtaane da may lu rëy rëy rëy loo xam ne ku jug di wut dara war ngaa njiit laayoo loolee euh, dafa nekkoon ci benn ruwaayu ñu moom ko di ko liggéeyloo lu bare bare bare nga xam ne amul dara sañul dara manul dara itam waaye yitteem ju kawe jooju tax na mu dem ba àgg ci royaume boobee mujj ci ay loxoom loolu kooku ñu bari xam nañ ko waaye itam donti àdduna ngay wut fexeel ba bul bàyyi mukk ci àggoo ndax yitt ju kawe ci misaal mi ngi mel ne kuy yéeg ay escalier li fekk àggagul ca njobaxtan fa mu jëm du taxaw waruta taxaw bokk bu fekkee yitt ju kawe moo tax a jóg kon ñi ngi ñaan mbokk ñu bàyyi ko xel te diglu ko te teewlu ko ci biir loolu lépp nag danañu ko indile ci njàngaleem cheikhul xadim radiallahu anhu digganteem ak borom daarul mooti ak sëñ waxudan bi nga xam ne mooy borom barab bi dañu di ko fàttaliku te moom rek doy na exemple euh, ci yitte ndax ba ko borom daarul mooti di indi ci barab bi bokk na ci dama ko waxoon ku ma dimbali ma toog fa wala ku ma jàppale ma toog loolu yitte te jamono jooju barab bi neexutoon na nekk moom borom daaru ci boppam gis nga loolu ngay ngay déggawaat ci biir ay doxaliinam digganteem ak Seexul Xadim mu agsi nag ci Seexul Xadim mi nga xam ne moom dafa wax ne ki may xeñtu muy rasulullahi day bu fekkoonte ne gisuma ci moom mi yenn jeexit ju weesu ne suuf si la daan dox asamaan si moo ko daan tiim loolu doy na ma ngir ma mën a xeñtu ngir ma mën koo xeñtu kon loolu yitte ju kawe la loolu la war a roy ci ñoom muy ñaan ñëpp ñu teewlu Sëñ Abdul Xuddus te fas yéene jëf jariñoo wax ji bañ rek ne teewe woon naa ko fekke woon naa ko te xëy na ku laajoon loo fa jariñoo ca wax ja mu bañ la mu bañ a mën a am loolu bum nu dal yàlla na ko suñu borom defal tawfeex ba li mu bëgg leeral yépp mu mën ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa assalaamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ridwanullahi al akbar ala abdillahi wa qadimi rasulihi ahmad ibn muhammad ibn habibillah wa ala akhihi wa adudihi al ayman al sheikh ibrahim wa ala jamii zawihim wal muridin al mutaalliqin bihim walmuslimina walmuslimat ila yawmi diin rabbil alamin mbokki jullit yi ñi ngi leen di nuyu nuyób lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di jiital ci sunub nuyoo ak sunuy siyaar kilifak ëtt bii ñu di cheikh muxtaar cheikh mohamadul muxtaar moom sëriñ mahmudan ibnu cheikh ibrahim di jaarale ci moom sunub nuyoo mu jot ñu ko njabootu sëriñ mahmudan koso gi góor ñi ak jigéen ñi waaye di beral nuyoo ak siyaar sëriñ maam Cerno ibnu sëriñ Mamor Koso radiyallahu anhu wa di jaarale sunum nuyoo ci sëriñ maam Cerno mi nga xamante ne moo fi teewal sët mooy kilifa ñi nga xamante ne ñoo organisé jataay bi mu jottalil ñu nuyoo bi ci mboolem waa kër sëti sëriñ Mahmoudan yépp sëtam yépp yu góor yi ak yu jigéen ñi di leen ndokkeel bu baax di jokk bokk gi di leen ñaanal di sàkku ci ñoom ñaan waaye di ñaanal it sunu kilifa yi nga xamante ne ñoo ñu jiite fii ci àdduna nekkal ci sëriñ bi muy cheikh Mouhamadul Muntaqa ak cheikh Mouhamadul Bachir Ibrahim mbokk yi xam ngeen ne waxtaan bi ñu ngi ko jëmale ci tomb boo xamante ne tomb bu am solo la ci lislaam mën nañ ne moom mooy ponk bi ëpp solo wala mooy fondement lislaam te mooy yitte kon dana baax lool bu ñuy tàmbali ñu wax am solo yitte ci lislaam ci mu gàtt lool ñu daldi ñëw ci li ñu tax a jóg dëgg-dëgg nag te mooy sëriñ bi ci boppam muy cheikhuna ahmadul xadim qaadallaahu lahu maxtaara lahu fi daarayn yitteem ju kawe moom ci boppam moom sëriñ bi fi mu jaarale woon ñi ko toppoon tamit tamu tudde woon ko a tarbiyatu bil himma ñu jiima wax loola gaaral ko waaye jiima xool it ki nga xamante ne moom mooy rakkam ju baax jë nekkoon ki nga xam mooy përëgum ndeyjooram di Cheikh Ibrahim taw sëriñ bi yar ko ci yitte jooju ana nan la appliqué nan la nekke namoosëj maanaam modèle ciite ju kawe indi ci ay exemple yoo xamante ne yu ñu mën a teg loxo lay doon laal tuuti nag ci boroom jataay boroom kër gi boroom dëkk bi di Cheikh Mahmoudan moom it ci yiteem ju kawe joxe it nag ay leçon ci loolu yoo xam mën nañ ko cee tiire incha allah xam ngeen ne yitte ju kawe lislaam ni ma ko waxee woon rek yitte mooy lan yitte buñ ko waxee ci ni ko boroom xam-xam yi xamle am na ku ñu ibnul xayim ibnul xayim al jawzi nekkoon koo xamante ne bindkat bu mag la bind na lu bari ci lislaam commentaire na lu bari bindkat yi ahlu tasawuf ak ñeneen ñu deme ni ñoom ñëpp seeni wax Ibnul Qayyim moom bari na lu koy lu koy lum koy gën a leeral ci ay mbindam Ibnul Qayyim moomu mën nañoo jël benn rekk ci ab définition walla ci ab xamleem himma ndax mën nañ ne buñ jël woon ci téere yi tasawuf yi sax daanaka danañ fa fekk ay centaine ay téeméeri téeméer ci ay ay définition waaye loolu tax ñoo jóg day guddal rek nañ ci jël benn bu gàtt yitte ju kawee ibnul qayyim nee na mooy nit ki mu jël bakkanam boppam bakkanam nag buñ ko waxee boppam kon aw yaramam day dugg ruuxam day dugg xelam day dugg mu jël ñett yooyu nga xamante ne moo composé nit yépp mu am fu mu ko jëmalee foo xamante ne amut lenn loo xamante ne dana ko ko jënde dana ko ko wottee loola dong moo koy tax jóg yett yooyu yëpp lenn loola koy tax jóg muy yaram bi muy roog gi muy xel lenn moo koy tax a jóg mooy àgg ci yàlla sunu borom te loolu moo tax yàlla bind doomu aadama wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon njitte ju kawe mooy fexe ba nekk jaamu yàlla ci kaw suuf jaamu yàlla ci kaw suuf loolu mooy yitte ju kawe ci ni ko ibnul xayim xamle kon yitte ju kawe jooju alxuraan àdduna ci ci lu baree baree bari gaa yu baax itam àddunañ ci yu bare lu baree baree bari noonu ko sëñ Mohamed waxe léegi bu dee ci alxuraan alxuraan foo ko fekk mu ngi woote ci saabiqu saariqu yaa ayuha alladina di digle ak di tere loolu mooy tegtale ne kon lii muy yitte alxuraan dafa bëgg ku ko fonk moo tax muy wax saariqu saabiqu fafirru ilallah loolu ku amul jiite du ko def ndax kuy waxut dox leen jëm ci yàlla waaye daw sax la wax daw kon loolu mooy xam le ne alxuraan àdduna ci lu baree bari ci ñu gaaw ñu am pëseef ci jëm ci sunu boroom ak nekk jaamu sunu boroom ak jaamu yàlla ci kaw suuf si nga xamante ne ñoo ko fi wuutu nit yàlla yu bari wax nañ ci ku mel ne imaam Malik wax na ci nee na yàlla sunu boroom dafa bëgg ci jaam bi muy bëgg yitte ju kawe waaye yàlla dafa bañ ci jaam bi it mu nekk ku doyadi ku koo xamante ne dara yitteelu ko ci mbirum yàlla yàlla dafa dafa sib kooku waaye dafa sopp it ki nga xamante ne day kawe kawelu nga xamante ne lu mu def ci lu baax rek ma ngay yóotu def leneen lu ko gën a baax wala lu ko gën a kawe nee na ñooñu yàlla def leen di sopp inna allaha yuhibbu kon lu am solo la maalil umur wa yakrahu lakum safasifaha ku ñu wax abdul xaadir jilaani sayiduna abdul xaadir jilaani muy ku sëriñ tuubaa fonk wax leen xam leen yite ju kawe mas nay digal ab dongaam ne ko bul def sa yitte li ngay lekk ak li ngay naan ak soxna yi ngay takk ak kër yu rafet yi ak li ngay sol nee na bu fekkee loolu dong mooy sa yitte kon an na yitte yi yitte yi ay na xamul xalb ndax doomu adama yàlla da ko composé ci ñett muy aljasad muy yaram bi physique ak euh, aroox te mooy esprit bi ak alxaqlu ba tey muy xel mi mooy laam laam euh, muy roogi ak ak ak euh, xel mi lenn lu ci nekk dafa am yitte ju ca war a jëm ba mu dund yaram bi li koy dundal mooy lekk ak naan ndax mënta ñàkk war naa sol yit yére yoo xamante ne ni ko sëriñ bi daan digle fu mu dem di su fa xeeb ku ko gis xemmeem ko waaye loola rek du yitte war naa wut soxna yit sum mën a ñoŋale soo xamante ne dana tax du ma yàlla war naa wut kër yit goo xamante ne dana fa mën a jaamu yàlla ak ñami àndal waaye loolu rek loolu dong du yitte des na beneen yitte mooy ban mooy jaamu yàlla ak sellal roogi moo tax Abdul Xaadir Jilaan yi wax jaamam boobu walla dongaam boobu ne ko kon sa yitte bu mu doon doon loolu dang dong muy yitte àdduna waaye boole ci yitte woo àgg ci sa boroom ak jaamu ko ci kaw suuf ak wuutu ko ci kaw suuf bokk na ci liy tegtal yitte ju kawe ni ko lislaam fonke mooy sun boroom day bari lu muy wax ñi nga xamante ne ñooy taxawal diine laa yastawi alqaaciduuna min almuminina xayri uli darar walmujaahiduuna fi sabilillah kon mooy xamal ne nit ki wërta yittewoo jubal boppam kese nekk ci lu baax kese di jaamu yàlla kese noonu ñu ko wax laa yadruku man dalla isahtadaytum loolu dong doyut waaye dafa war a yittewoo jubal boppam waaye jubal ñeneen ci àdduna ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kenn nit koo xamante ne ci yow la jaare ba jub ci sa sabab nee na moo gën àdduna ak li ci biiram kon nit ki war naa def yitteem ci loolu ci di jàngale lislaam ak di jubal ak di eh, labiré eh, jaam suñ yi loolu yitte la ci lislaam naa nekk yitte yit joo xamante ne jullit bi war na koo yitteel mooy ni ma ko waxee jàngale ak tasaare xam-xam kon yitte daal buñ ko doon misaal dañuy wax ne mooy garab garab gi waaye mboolem bànqaas yi mooy jikko yu rafet yi ak jëf yi mooy mooy bànqaasi garab gi kon yitte mooy fonda fondation yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe benn modèle exemple ci yitte ju kawe ndax ni ma ko waxee rek mboolem gis ngeen yonent yi fi jiitu woon ña ci ëpp yitte ñoom la yàlla tudde ulul azm ba muy digal yonent bi daf ne ko fasbir kama sabara ulul azm li tax ñu tudde leen ulul azmi dañoo gën a rëy yitte ñeneen ñi ci des ñëpp ndax naa ibrahima ci misaal naa ibrahim wax nañ ne mësta lekk te bokkut ak gan fu mu lekkee rek gan la bokkal loola tax sun boroom def ko xalilullah faye ko loola fonk gum fonk jariñ doomu aadama yi ak jariñ mbindeef yi moo tax yàlla def ko xalilullah kon loolu yitte ju kawe la bañ koy sànni ci sawara wa it moom Seydina Ibrahima Jibril dafa ñëw ne ko mën naa la fëkk sànni la mu ne ko ndax loolu yàlla la ko diggal mu ne ko déedéet mu ne ko bàyyee ma ak sama borom xasbunallah wa ni'mal wakil jibril ne ko bàyyee naa la ak sa boroom yàlla intervenir nag directement ne yaa naaru kuuni bardan wa salaam loolu moo gën a gaaw jibril sawara bi bu lakk ibrahima rek kon loolu jiite ju kawee moo tax ibrahima am ko moo tax mu bokk ci ulul ndax foofa gisatut jibril gisatut benn benn benn intervention bu dul yàlla moo tax yàlla intervenir directement wax sawara wi ne bu lakk seydina ibrahim loolu yitee ko ko may waaye seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yiteem ju kawe àggoon na ci bi nga xamante ne moyens yi ñu doon jëfandikoo yépp ngir maanaam rey ko jële ko fi faagaagal li muy woote ba ki nga xamante ne moom moo ko doon protéger moo doon tuteuram tuteuram te mooy baayam Abu Taalib moom sax dem ba jaaxle nag ne ko lii daal danga ko war a bàyyi te ñëw bu fekkee da ngaa bëgg a doon buur ñu def la buur bu fekkee da bëgg nangam fekk ba mel na daal ku ko nar a lâché ku ko nar a bàyyi jàppale gi mu koy jàppale yenent bi daal koy giñal ne ko wallaahi yaa am yow sama baay la wadau shamsa fi yamini wal xamara fi yi ala an atruka hadha al amr ma taraktu xatta yusxira aw ahlika yow sama baay na la wóor ne bu ñu jëloon jant bi ak xool leen température bi jant bi am ak tàngoor wa ca nekk ñu teg ko ci sama wetu am nday joor jël weer wi xool leen tàngaayu weer wi ak leer tàngaayu weer wi ñu jël ko teg sama loxo càmmoñ fitna ja ca nekk loola buñ ma ko defoon ngir ma bàyyi lii nga xamante ne sumb naa ko duma ma deltu gannaaw ba dara dama dee dama fee bàyyi ko alku walla lii may sumb ak kon foofu yitte ju kawe la boo xamante ne maanaam maanaam euh, départ boo xamante ne dellu gannaaw amatut foofu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wane na fa yitte ju ba muy tàmbali saxaaba roy ko ci yitte ju kawe jooju ñeent rek laa ci tudd yam te seen yitte ndax bañ a guddal ndax thème bi mi ngi jëm ci sëriñ bi ci boppam yitteem ak na mu ko jàngalee abu bakrin sadiq te mooy alxalifatul awwal yitteem kawe na kawe goo xamante ne yéeme na jéggi na dayoo am na bis yonent bi sallallahu alayhi wa ne ëllëg day bu yowmal xiyaamee képp koo xamante ne def nga jëf ju baax dundal nga sa alal ci ñaari mbir ñaari jaamu yàlla maanaam nga goreel ñaari jaam wala nga julli fanaane julli guddi ngir yàlla ñaari raka wala nga woor ñaari fan ngir yàlla wala nga def loo def loo xam ne zawju la rek ñaar ñaar ci lu baax bu ëllëgee yàlla dana la ko fay àjjana waaye yàlla bu lay fay àjjana yonent bi wax ko Abu Bakri ne ko yàlla bu lay fay àjjana day xool ci ban bunt nga war a dugge bu fekkee dangaa bokk ci jullikat yi ci buntu baabu salaat àjjana ay bunt la bunt bu nekk daa fekkee dangaa bokk ci jullikat yi ci buntu salaatu la lay la lay jaare jaare bu ñuy wax jaamu yàlla yi nag farata yi taxul ñuy wax naafila yi moo tax ndax farata yi moom jullit ñëpp ko bokk waaye ñi nga xamante ne nag seenu jàmm yàlla li ci ëpp mooy naafila guddi ñooñu lañ jubloo wax ñooñu ëllëg bu ñuy dugg àjjana ci buntub salaatu la leen suñ boroom di jaarale ñi nga xamante ne it seenug jaamu yàlla la ci ëpp koor lay doon koor ga buñ koy wax jubluñ ci koorug farata koorug farata moom sañ bañ la far force la jullit ñépp ko bokk waaye jekki-jekki nga xalaat sa boroom woor benn bis wala nga woor ñaari bis te yàlla rekk tax te dëkke ko di ko faral di def ñooñu bu ëllëgee nee na bu leen yàllay fay buntu koor la leen di jaarale am ñoo xamante ne it ci buntu joxe la leen di jaarale joxe seen alal am ñoo xam ne ci buntu aj la leen di jaarale bi bi yonent bi waxee loolu ba noppi Abu Bakrin Saddiq ne ko waaw ndax am na am na ñoo xamante ne mën nañoo jaar ci bunt yépp ndax loola am na xoolal yitte ju kawe maanaam maanaam abubakarin moom xeeb nañu jaarale ko ci buntu salaat xeeb nañu jaarale ko ci buntub siyam muy koor xeeb nañu jaarale ko ci buntub infaq muy joxe sa alal xeeb nañu jaarale ko ci buntub eh, yeneen jaam yàlla yépp ne nag waaw kon ndax am amut koo xamante ne mën naa jaare ci bunt yooyu yépp nga xamante ne bunt yépp da ciy jaar yenente bi ne ko kooka de yow la yow la xam loolu dara daraja ju kawe la ndax yiteem ak xam ne moom mën naa jaare ci bunt yëpp dugg àjjana moo tax mu ne ko ndax amut koo xamante ne mën naa jaar ci bunt yëpp bu doon ku ñàkk yitte wala ku doye di day day yem rek ca la yonente bi wax mooy man daal naa na siiwa jaare ci buntub joxe alal ndax man mënumaa julli naa na siiwa jaa jaar ci buntub koor ndax mënumaa amu alal dama mënumaa joxe alal dama nay wala mu ne naa naa jaar ci buntub aj waaye Aboubacarin moom bunt yépp la bëgg a far euh, maanaam akimoo kon loolu mooy yitte ju kawe ci nu ko lislaam ci gàttal rek ñu ñëw nag ci sunu jàmbaar ji di Cheikhul Xadim yitteem ju kawe Cheikhul Xadim radwanullahi alayhi xam ngeen ne yitteem ju kawe mën nañ ne histoire xamu ko histoire xamagut ku ko gën a kawe yitte ku ko gën a rëy bët lislaam xamu ko ku ko gën a yaatu bëgg-bëgg ci diggam ak boroomam lislaam xamagu ko moom cheikh na ahmadul xadim mi ngi wax ci innani ostu bil ilahi al muhini min jami al adha wa kulli laini saarifan himmati li rabbi taala rajiyan saqyahu bi ma in mahin sëriñ bi nee na sama yitte jëpp masaktu bil kitaabi maska daririn bi yadil qaidil mubsiril muin sa uhdi bihi sahbi wa uhdi bihi waaw noonu la ko sëriñ bi waxee sëriñ bi yitteem ju kawe nee na mooy yitteem jëpp daf ko def ci jëm suñ borom jëm ci suñ borom àgg ci suñ borom waaye yiteem jëpp daf koo def ci delloo siwaat alxuraan bëlëram ci Sénégal ci bi sëriñ bi ñëwee ak fim mu ko fekk waaye yiteem jëpp daf koo def ci delloo siwaat am njàngale indi ko nag ci ay méthode yoo xamante ne kenn mësu koo def ku dul bi sallallahu alayhi wa mu def li wax troisième choix troisième choix bu ma ko waxee ci maanaam contexte bi nga xamante ne Sénégal nekkoon na ci maanaam jamono yi nga xam ak li nga xamante situation bi Sénégal doon dund ci jamono yooya mooy ñaar ñett fi nekkoon buur yi ak colonialiste yi ñoo fi nekkoon ak sëriñ si buur yi booba ay caddo lañ di jël alale nit ñi di di leen euh, noggutu di di di di jëfandikoo daal seen doole ak seen bànneexu bakkan colonialiste bi dañoo ñëw ngir faagaagal réew mi maanaam alal li suñ alali réew mi ñu muuc ko yóbbu ko yëlif ni xeex sunu diine ji def ñu ay nasaraan fexe ba lislaam du fi du fi du fi du fi yëkkati ko loolu moo leen taxoon a jóg sëriñ si ñoom ay jàmbaar lañu woon daanañ dundal lislaam waaye ñoom it ña ñetti xaaj lañu woon am ci ñoo xamante ne mooy mooy troisième choix bi ma wax ne sëriñ bi jël na ko am ci ñoo xamante ne dañoo nangu waaqe te mooy maanaam gëm ne colonialiste yi ak buur yi fi nag mën a luñ leen dara kon nañ nañ leen bàyyi rek am na lii ndogalub suñ boroom la ñu nangu waaqe mooy nangu li nga xam mooy réalité istislaam téye seen bopp rek di jaamu yàlla ak seenu njaboot waaye jéemuñu ci leneen ñeneen ñi ci des dañoo jël di ànd ak buur yi ak ak euh, tubaab yi maanaam di di di leen di leen jàppale maanaam li ñuy wax xaw a jàng jàng ànd ak ñoom muy ñetteel bi muy ñaareel bi am ci ñoo xamante ne it dañoo jóg taxaw jël arme ne dañuy xeex tubaab yi xeexaat buur yi nga xamante ne topp ñu lislaam bañ génn réew ku mel ni ah Maba Jaxu Ba ku mel ni Cheikh Omar Foutiyu Taal ku mel ni Ahmadou Cheikh ñooñu dañoo jël ñoom suwaab arme def mujaaba mu waaja waaye ñooñu ñëpp gis nañ ne kenn réussiru ci kenn réussiru ci ndax ñoom ñëpp dañ leen a rey Seydina Cheikh Omarul Foutiyu Taal ci ñi fi njëkk wa taxal guerre sainte la waaye dañ ko rey euh, Ahmadou Cheikh dañ koo rey ci xareb Samba Sadio ba jël ay ay alalam yépp te booba Lat Joor la doon xeexal ak ak waa ku ñu wax ma Cheikh laa Lamine Sarr dégg ngeen ko moom it dañ koo rey sëriñ daara yi fi nekkoon ñu ci baree bari dañ leen a rey buur yee leen rey ñi ci des tubaab yi rey leen léegi nag sëriñ bi ñëw jël beneen mën hëj nag boo xamante ne ci lay jàmmaarloog buur yi ci lay jàmmaarloog tubaab yi te mën hëj booba xelum sëriñ bi ak yiteem ju kawe moo ko moo ko moo ko produire moo ko génn moo ko togg loola mooy lan mooy fexe ba indiwaat lu ñuy tuddee jàngale ak delloo siwaat maanaam yarub ruux tarbiya bil himma ak li ñuy wax maanaam euh, jaamu yàlla te loola li ko tënk ne ko sëriñ bi waxe ñaari mbir rek la te mooy li wax at taxliya ak at taxliya ndax sëriñ bi dafa wax ne wa min ajaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin ada ardahu bil ardiya ila alqiyaamati wa kullun waliya sunnatahu wa saanaha an bidaci tabshirahu qadimahu bi fasdaci amarahu salla alayhi llahu fi l ali wa saxbi wa man walaahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbalu minhu nusxa min ahli zaman sëriñ bi dafa wax ne moom dafa jot ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu béral nag lii nga xamante ni moom la ñuy tudde alhimma fasda fasda bi ma tuumar mooy rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars faqat maanaam ñaari ñaari ñaari version la benn version ba Cheikh Mouhamadou Lamine Diop nettali na ko ci irwaa un nadim mooy rabbi asxaabaka bil himma ak ala man saxibana li taallum fal yawi li jansihi wa man arada ma aradna fal bi sayrina noonu la ko Ibrahim Cheikh Ibrahima Diop ak daga Cheikh eh, Mouhamadou Lamine Diop daga ni waxe beneen version bi sëriñ Basiru nettali na ko ci minanul baaxil xadim mooy suñ boroom moo ko wax ne ko yow euh, Ahmadu kaweelal sa yitte te yar ñu nga àndal ci yitte ju kawee te nga xool kenn ku nekk la ndabam àttan nga sol nga nga defal ko ko kenn ku nekk la ndabam àttan ak feebaram nga fajal ko moo tax sëriñ bi daana wax ne bu ma sant sant leen lawbe bi bu leen ma xarab xarab leen lawbe bi loolu mooy lan mooy sëriñ bi xam ngeen ne ndab yim doon yim doon yim doon dënale ëppaate na am na ñu duy ba feesal am na ñu duy lu yam am na ñu duy lu xaw a yamumaay waaye kenn ku nekk la xaj ca ndabam loola la la sëriñ bi defal ak fasa fasa yitte ju kawe toll loola maanaam méthode la méthode jàngale boo xam ne euh, bu am solo la mooy nit ku nekk ak na nga fa nga koy jaarale ba mën koo jariñ mën koo gindi mën ko àggale ci yàlla moo tax gis ngeen njàngalem sëriñ bi buñ ko xoolee ni ma ko waxee ci ñaar yii muy taxliya ak taxliya noonu mu ko wax ci bayt woowu taxliya moo war a jiitu ndax ndab bala nga caa def danga koy raxas ba set te bokk na ci li ñuy li ñuy war a njëkk a dindi ci ndab li wala li ñuy war a njëkk def ci nit ki mooy mbooleem yi aju ci moom ci àdduna ak bakkan ak bànneex ak seytaane yépp nga raxas ko ba mu set door koo mën a def nag takkal euh, tak door ko mën a takkal nag li nga xamante ne mooy taxliya mooy takkaay bi moo tax sëriñ bi gis ngeen ko boo ngeen demee ci maxaaliqu niiraan maxaaliqu niiraan buñ ca delloo danañ gis sëriñ bi nu mu fay jàngalee ñett yooyu ma wax te mooy bakkan ak seytaane ak bànneex ak àdduna ñett yooyu yépp bu ci nekk sëriñ bi day wax nuñ koy set la nuñ koy raxas bu dee bakkan mi ngi nii maxaaliqu niiraan sëriñ bi dafa wax ne wa in suriftumoo ila al jihaadi fa qaddimu daalan min al min al aadi na ngeen bu fekkee da ngeen bëgg a jihaad ak seen bakkan te tax taxliya boobu ma wax mooy raxas ndab li ba mu set nga door cee def bernde yi wala nga doot cee def taxliya sëriñ bi nee na la ci njëkk mooy bakkan ak àdduna ak seytaane ak banneex yooyu yëpp benn bu ci nekk mu wax nag nan lañ koy raxase ba mu set nga door a mën a nag am li ñuy wax taxliya te mooy danaa ci ñëw ci kanam lan mooy taxliya bakkan bi nee na li nga koy raxase wala li nga koy yare mooy dee ko xiifal dee ko xiifal ngannaay li nga xamante ne moom la lay attaquer moom bakkan bi mooy ragg ndax saa yu raggee rek xel mi day wàññeeku te day tàyyal nelaw rek moo fay sës àdduna nee na ngannaayam li nga xamante ne moom la lay core mooy fexe ba nga bari jaxasoo barib jaxasoo boo ko defee doo def dara moo tax sëriñ bi gis ngeen ko ni mu fonke woon maanaam xosilatu ñim yar ñépp yit da leen ci daan bari lu mu leen koy def loo ba mën a dugal ci ñoom dara ndax bu xosilatu amut doo doo mën a def dara doo mën a jaamu yàlla sa liggéey bu àdduna sax du sotti ndax nit ñi moom boo dëkkee ci ñoom doo def dara ñetteel bi mooy bànneex bànneex nee na ni nga ko ni nga ci ni nga ciy kiyee mooy bu nekk ci lu amul njariñ noonu ko sëñ Mohamed waxee léegi ñi àdduna sax yitteel bis bu nekk ñi ngay seet lañu nekk nu ko nuñ koy dollee ak yitte juñ koy gën a yokkee kon yow mi jëm ci yàlla bul nekk mukk ci maanaam loxoy neen bul am waxtu woo xamante ne yaa ngi toog defoo dara benn yaa ngi jàng alxuraan wala yaa ngi sikkar wala yaa ngi def lu la amal njariñul àdduna wala njariñul àlaaxira nee kon xawaa muy bànneex niñ koy xeexee mooy fexee ba bul def loxoy neen seytaane nag ni koy musloo moom mooy fexeel ba bul sàggan ndax moom sàggan rek la lay cëla lay dugal na ngay mucc ci seytaane nag mooy bari looy tudd yàlla moo lay musal ci seytaane kon ñeent yooyu ma wax moom ngay raxas door a mën a am li ñuy wax taxliya soo muccut ci àdduna muccoo ci nafs muccoo ci xawa muy bànneex mujjoo ci seytaane doo mën a am garaad yi nga xamante ne mooy garaat yite te ju kawe te mooy tax taxliya kon sëriñ bi bokk na ci fi muy jaarale ay taalibeem ci yite ju kawe mooy li muy njëkk a def mooy da leen di waajal ci ñen ñeenti noon yooyu bañ mucc ci ba noppi buñ muccee ci ñeent noon yi nag mu joor leen jox takkaay yim leen di takkal moo tax gisoon ngeen ñi ñëw ci sëñ bi yépp loolu la njëkk a def ci ñoom mooy dindi ci ñoom adduna dindi ci ñoom topp bakkan nafsul amaara dindi ci ñoom hawa dindi ci ñoom seytaane ndax am na ku mas masa ñëw ci moom sëriñ bi ne ko a'uuzu billahi min asheytaani rajim sëriñ bi na ko loolu musalu la ci la la ciy musal mooy daw fa mu nekk fa mu nekk nga jóge fa moo la ciy musal waaye a'uuzu billahi min asheytaani rajim musalu la ci seytaan kon bu loolu amee ñeent yooyu nga xamante ne mooy taxliya te sëriñ bi tuddee ko ci man manhajam taxliya ni mu ko waxee ci bayt woowu bu ñu delloo ci imaam Xasaali yi tudd na ko imaam Xasaali yi nee na murit bi tariqu tariqu ilallah tariqul iraada tur yi moo wuute rek waaye ni ko sëriñ bi tuddee ak ña ko ñeneen ñi euh, nit yàlla yi tuddee day xaw a nuroo imaam Xasaali yi wax na ko nee na ku bëgg a dem ci yàlla faw nga mucc ci yi nga xamante ne mooy mooy kiiraange yi nee na kiiraange yi kiir nit xujubul xaq ba nu man àgg ci yàlla nee na ñeent la moom imaam Xasali nee na ba ci njëkk mooy alal bu ñaareel ba nee na mooy aljaah bu ñetteel ba nee na mooy almahsiya bu ñeenteel ba nee na mooy attaqlid alal nee na nanga ciy mucce mooy maanaam fexeel ba loo ci am rekk dugal ko ci yoon yàlla génne ko def ko ci lu baax waaye bu la alal bu la alal ji moom fexeel am na ñoo xam ne seen alal moo leen moom fexeel nag yow ba moom alal ji mooy def ko ci yoon yàlla adduna imaam Ghazali comme ni ko sëriñ bi waxee nee na la ciy musla it mooy maanaam nga bañ a bëgg àdduna ndax ahda ahda mooy bëgg adduna moom mooy rasu kull xatiya bëgg àdduna moom mbooleem ñaawte fii bëgg àdduna mooy bi ci yes ndax da dalay wor bis boo xëyee danga koy gën a bëgg defee ne danga nga fi des te bu ñu seetloo rek daaw ak ren ak at yi ñu weesu rek danga gis ne àdduna kenn du fi sax kon loolu kooku mën mënta mën naa fàggu waaye nag bu mu la tax a jóg ndax sëriñ wax na ko ci masalik nee na fàggu teew taxut bëgg àdduna moo tax sëriñ bi it nañuy bàyyi xel bu baax am njàngaleem ndax li ñu tasawuf sunni yi la doon def ndax ñaari tasawuf daa am daa am tasawuf boo xamante ne ñoom dañoo bàyyi àdduna dem ci àll ba di jaamu yàlla du ñu liggéey du ñu duñu du ñu jaay du ñu bay du ñu def lenn loola sëriñ bi nee na du tawakkul sëriñ bi nee na loolu du tasawuf sëriñ bi tasawuf bi mu bëgg mooy tasawuf boo xamante ne day boole àdduna ak alaxira moo tax gis nga ko ci téeréem yi def Matlabul Fawzayni dégg nga nooru daarayni ak yu mel noonu sëriñ bi day wane ne moom li ko tax a jóg mooy defar àdduna waaye defar alaaxira kon metod boobu mooy méthode sëriñ bi ci wàllu àdduna maanaam du ko bàyyi maanaam mutlaqan absolument waaye da koy jël àdduna def ko zaaduhu lil jinaan wan qaada lil hawa safal janaan axastu min dunya zaadi lil jinaan maanaam da koy yóbbu lool loo ci fàggu it da koy fàggu defaat ko ci yoon yàlla ngir mu mën a nekk ab yóbbal ci alaaxira waaye sëriñ bi moom gëmul na dañoo war a bàyyi àdduna bañ cee def dara moo tax tasawuf bu am solo la njàngale mu am solo la ci himmatu seex tarbiya bil himma ci àdduna kon taxliya door a ñëw mooy nag takkaay yi taxliya tarbiya bi tax maanaam résultat bi gannaaw bu nit ki bu ko sëriñ bi waajalee ci ñeent yooyu ma wax ba pare gis ngeen sëriñ bi lim njëkk a def mooy taw fiirul bii a te mooy maanaam environnement sain fexe ba nga am barab bu set bu sell boo xamante ne lenn lu lay influencer wala lu lay yàqal wala loo xamante ne man na laa euh, attirer wala mu lay euh, mooy loo yàlla wala mu lay dugal ci ak ay njaaxum loola doo ko am te mooy albiatu saaliha te mooy environnement environnement lu am solo la moo tax bu ngeen demee ci euh, téere boobu ñuy wax xoqal bukaaw sëriñ bi ba mu cay lim lawazim yi nga xamante ne mooy gaa yi jëm ci àlla fukk la ko la ca def fukk yooyee bokk na ci la sëriñ bi boole mooy waruf xatun wax ya ixwaanun lahum lahum imamun mahal wafaa'i bi sidqin fil uxuwaati loolu mooy biatu saalix maa àndandoo yu baax société bu baax nit ñu baax dëkkandoo yu baax di leen gis ñuy def loolu dafa am lu am solo lu muy tiire ci nit ki ñun ñi nekk ci biir Sénégal gis nañ ko ñi nekk bitim réew yit gis nañ ko kër sëñ Touba ya fa nekk daayira ya fa nekk gis nañ ban influence lañuy def ci ñi nga xamante ne ñoo fay fréquenté ak nu ñu leen di musalee ca bi atul alxabisa euh, muy mooy muy environnement bu bon ba boo demoon tey ca fa ñuy fa ñuy fecce wala nga dem ca cinéma ya wala nga dem ca leneen loola nam nami nami nam lay nam lay nam lay yàqe ak nam lay soppee du bokk ak boo demee ci kër Serigne Touba yi wala bu dee fii ci réew mi it boo demee ci jàkk yi wala nga dem ci daara alxuraan yi wala nga dem ci fi ñuy defee kuréel yi wala ngay dem ci nit ñu baax ñi di leen fréquenter loolu li muy def ci yow lu baree baree bare moo lay musal moo tax kon albiatu saaliha bokk na ci li nga xamante ne sëriñ bi moom la njëkk indi mu indi nag dëkkam yooyu ndax gis ngeen bi fi Maamoor Anta Sali jógee sëriñ bi ci la door a woote tarbiyatu bil himma ndax dafa fonkoon kilifteef diirub li fi Maamoor Anta Sali nekk mës woote waaye te boobu fekk na mu ngi ci xolam ndax sëriñ bi moom bi mu ñëwee ci àdduna rek benn yitte am mooy àgg ci yàlla ak àggale ci mbooloo mu baree baree baree bare bare waaye nag fonk kilifteef ak fonk waajur tax na must nangu nag musta nang nag nang nag def déclaration yitteem jooju loolu tax na moom sëriñ bi bi fi Maamoor jógee nag ba mu def inlaan muy mooy mooy mooy muy déclaration bu mag boobu woote ca Mbàkke Kajoor ci atum 1882 wala 1883 te mooy rabbi asxaabaka bil himma bi ñu ñëwee nag ca déwén sa mu xam ne lii muy woote faaw mu wutal ko nag li may wax muy environnement moo tax mu toxoo Mbàkke Kajoor ca déwén sa ñëw sanc këram yooyu Daaru Salaam te am na lu muy wundu ndax sëriñ bi dafa jël métatu bañ a jàmmaarloo maanaam force jëfandikoo force ndax gis na ñi jëfandikoo woon force ñëpp dañoo échec ci ci ñi nga xamante ne ñoo doon def maanaam maanaam maanaam maanaam ñoo doon ñoo doon def nit ñoo doon xeex ak tubaab yi wala ñu doon xeex ak buur yi te gis ne yàqute yàqute yàqute am na waaye li koy dindi du force du xeex du jël arme ndax force yi amut amut amut maanaam yemu tolluwul moo tax sëriñ bi daal di jël jàngale nag ak wut fuñ mën a jàngalee te mooy environnement mooy mu toxoo Mbàkke ndax xat na ci moom te boor yi jege nañ foofu mu ñëw fii nga xamante ne mooy Tuubaa ak daaru salaam sanc daaru salaam def fa ñaari def fa ñaari at mille mille euh, trois cent quatre ñëw Touba mille huit cent quatre vingt huit Touba bi nga xamante ni ñëw na nag foofu ci la réaliser lépp ci lim bëggoon ci ay xalaatam ak ay méthode ak ay principe am gëmoon ci himma xuluwul himma bokk na ci ni ma ko waxee mooy jàngale jàngale sëriñ bi ñetti xaaj yi la doon def ba ci njëkk mooy njàngaleem alxuraan bu ñaareel ba mooy njàngum xam-xam al ilmu naafix bu ñetteel ba mooy maanaam ñi nga xamante ne nag jàng nañ ba noppi jàng nañ alxuraan jàng nañ xam-xam ba matal ñu wa waaye nag àgg ci yàlla ak sellal manki leen ñooñu sëriñ bi moo daan jëfandikook ñoom di leen won yàlla mooy tarbiyatu bil xaal minhum rabbin bi xaalin waxdaha abad mooy di leen won yàlla di leen tombal di leen won ba ci sax léeg mu won leen gaa yu baax yi ñu gis ko ay karaamaat loola day yëkkati seen yitte ñu xam ne kii ñu àndalkat sëriñ bu matub sëriñ la ñu gën a koo sopp gën koo bëgg mu di leen won yàlla ba nga xamante ne seen xel yépp ci yàlla kese lay nekk ndax gis ngeen ñu baax ñooñu jamono yooyu jamonoy sëriñ bi àggoon nañ ci da nga gis ñoo xamante ne daanaka mën nañoo dox ci kaw bopp seng yi sax dañ ci daan daw bopp seng seng la muy ñaw ñaw ak la muy sew sew dañ ci daan daw da daan gis ku gis ndabal satala guy guy bax mu jël ko naan ko te du ko yëg du ko lakk axwaal yooyu la leen ko mayoon mooy yitte ju kawe ak àgg guñ àggoon moo leen ko may te sëriñ bi moo ko daan def ci ñoom waaye yëmut ci loola ci ñett yooyu rek jàngale muy jàngum alxuraan mi ak njàngum xam-xam mi waaye mu boole ca leneen loo xamante ne mënta ñàkk te sëriñ bi gis ne mënta ñàkk te loola mooy lan mooy alxidma al istixdaam sëriñ bi ñu ñëwoon ci moom da cee am ñoo xamante ne maanaam rang social yi amoon ci réew mi maanaam maanaam maanaam maanaam réew mi société bi niñ ko niñ ko niñ ko séddale woon daa ñu naan ñii ñoo war a def lii ñii ñooy war a defar maanaam wàllu der ñii ñoo war a defar wàllu weñ ñu tudde leen ay tur ci ne ko réew mi xamee ñii ñoo war a defar bant ñi war a defar nangam ñi war ñoo war a sàmm sàmm yi xam nga Sénégal rek société bi nim ni mu demee sëriñ bi bi mu ñëwee li njëkk dindi mooy lool doomi soxna yi nga xamante ne dañoo jàppoon ne def nañu waruñoo dem ci ay der di ko tàpp wala di ko def nangam ñooñu la doon awloo nee na lu suñ daan awloo doomi soxna yi ngir dindi ci ñoom ak rëy ñi nga xamante ne ñoom lañ daan def loo loolu ñoom la sëriñ bi daan bindloo alxuraan ak di leen di di leen di leen liggéeyloo liggéeyloo yoo xam doomi soxna yi defoon na ñoom rek ñoo ko war a def tayeel gi nga xamante ne nit da koy def it am ñoo xam da leen daan taxanloo am ñoo xam dañ leen daan da leen daan yelwaanloo yelwaan ndax borom daaru mii rek yéen ngi dégg ñu ne bi sëriñ bi àndeek moom dem ndar ci maam askamara sëriñ bi daf ko daan wax ne li may jëfandikoo moom moo ko daan moo ko daan wuti borom daaru waaye sëriñ bi da koy wax ne ko booy yelwaan bul dem ci këri ñi woomal këri ñi néew doole lay dem ngir lekk gu lu lew loolu ci méthode la woon boo xamante ne liggéeyloo istixdaam ci xeeti taxani wuti matt yooyu yëpp dañ leen ko daan def loo boole ci nag sikar soo xamante fu ñu toll dañ daan tudd yàlla ci kaw bu guddee ñuy tudd yàlla di jàng xasida yi di jàng salaatu ala nabi di julli waxtu yépp ci mbooloo yi loolu dafa am lu rëy lu indi woon ak boole gim leen boole woon it ñu bokk benn bëgg-bëgg loolu dafa am lu mu juróon ndax tax na xeebante amatul ci seen biir ndax loolu ma wax muy méthode boobu sëriñ bi am mujj nañ jaxasoo ci wàllu ay ay soxna mujj nañ jaxasoo ci wàllu ay relation yoo xamante ne kenn ku ci nekk sa sa sa moroom moo la gënal sa sa sa sa sa bopp loolu Sëriñ Tuubaa moo ko def ci société bi mu indi résultat yu kawe ci imaan ci islaam ci ihsaan indi li ñuy tuddee inkisaar te sëriñ bi nee na mboolem yoon yi nga xamante ne mooy jëmale ci yàlla yoon bi ci gën a gaaw mooy maanaam fexe ba aljah te mooy bëgg daraja ak bëgg gis leen ma ak bëgg wonewu loola mu fexe ba dindi ko ci yow nga xam ne ku sëriñ bi defar da gis ne bu mbooloo teewoon fii sax kenn du nangoo jiitu loolu sëriñ bi moo ko daan def ci ay taalibeem te moo ko fi jàngale te am na ku ñuy wax imam rafaa yi nee na gis na yoon yi jëm ci yàlla mu bari tol na ne nokki doomu aadama yi waaye nee yoon bi ci gën a gaaw ci àggale nit yàlla mooy al inkisar inkisaar mooy maanaam wàcce sa bopp jàpp ne yow doo dara yaraw na anfusahum duunal wara kullihim wa annahum lam yariqu bil karamati minha talaazum hadami nafsi duuna hawan li kawniha saata makrin wal xururaati loolu méthode la it boo xam sëriñ bi daf ko daan jëfandikoo lool lool lool ba ñi njëkkoon ànd ak moom kawe ca lool lool ba àgg ci suñu borom euh, damay jeexale ci sëriñ mahmudan sëriñ mahmudan koso ci juróomi minute rek xam naa ne sëñ Mouhamed moom tey moom danga may da da ngay da def loo kii rek waaye mënee sut waxtaan fii te tuddee sut yi tey sëriñ Mahmoudan sëriñ <coughs> Mahmoudan <coughs> eh, ni ko boroom xam-xam naat bi wax waxee rek nee na am na ci boroom daaru ñeenti mbir arbaatun ñeent yi jikko yooyu borom sëñ Mahmoudan doon na ci borom daaru alxilmu wal ilmu wal adab maa ngi baax de dama nekk ab wat ab mokkalkat de mokkaloon ñëwoon taril ma ko fii rek ma firi ko hmm. waaw waaw bay di moo nekk qad xaasa min irsi ibrahima arbaatan al ilmu wal xilmu wal aadaabu wal juuda inni raaytul xumaama nadba mahmuuda adxa bihamdi ilahi alxarsi mahmuuda lam yujad alyawma fi sa alasri mushbihuhu man kaana yushbihuhu ma kaana mawjuda la zaala yaqfu alkarima nadba waalidahu man lam yakun misluhu fi nnaasi mawluuda loolu benn naaru gànnaar bu xam sëriñ Mahmoudan lool moo ko seere ci moom te mooy melo yi nga xamante ne moom la melowoo te mooy yite ju kawe yite ju kawe yiteem ju ci xam-xam ñeent jikko yooyu rek doy na ci yitey sëriñ Mahmoudan xam-xam sëriñ Mahmoudan géeju xam-xam la woon jàngal ñu baree bari ndax buñ ne laa nit am na xam-xam dañ naan la ana ñum jàngal wala ana lum bind ñaar yooyu mooy firndeel xam-xam sëñ Mahmoudan nag moom la def daf koo def ci ay nit defu ko ci ay téere ana ñum jàngal ngay wax ñu mën laa limal lu mat ñeent fukki nit ñoo xamante ne ñépp ay boroom xam-xam lañ te seen xam-xam tasaaroo na ci biir Sénégal alxilm muy jikko ju rafet ak mbaax ak inkisaar yooyu moo melo yooyu sëriñ bi bëggoon yépp adab ak mën a jariñ doomu aadama yi ak isaar yooyu sëñ mahmudan maanaam jël li nga am jox ko ñeneen te ajowoo ko yooyu sëñ mahmudan da cee da raw ñëpp ndax gis ngeen koso ni mu tare woon ak ni mu mettee woon sëñ Basiiru Anta Ñaŋ nettali na ma fi ay ay jafe-jafe yu bari yoo xamante ne amoon na fi waaye neen at mu ko am mu ko amee bu bayee mbayam du ko lekk da koy séddale lenn la mu jox ko sëriñ Abdul Ahad lenn la mu jox ko sëriñ Abdul Quddus lenn mu jox ko sëriñ Mouhamad Habib lenn mu jox ko sëriñ Mouhamad Awa Balla nii la daan defee mbayam loolu yaakaar naa infaq te mooy li li ñu wax léegi te Abu Bakrin waxoon ko yaakaar naa bunt boobu sëñ Mouhamadou doy na ci exemple ci joxe alalam liggéey di joxe liggéey daw lekk di ko lekk waaye daf daan liggéey di ko joxe adab yi mu nekk loo xamante ne ku ci kawe woon la ci adab yooyu <clears throat> moom sëñ Mahmoudan mooy ak taalib sëñ Basiir Antaña nettali na ma ne mas na ànd ak moom ci Touba ci kër Sëriñ Fall nee na booba kër Sëriñ Fallu bunt bi apprenti yeek chauffeur yeek ak jaaykat yeeg jëpp dal ci bunt bi fa la ñuy nekk nee na ma ànd ak sëñ dem di siyaare ji sëriñ fal bi àggee nee na fi apprenti yi nekk ak chauffeur yi ak jaaykat yeeg jaaykati ndox yeeg jaaykati nangam yi nee na sëñ Mahmoudan bi mu leen jubee la summi ay dàllam ne ma bas téyal ma samay dàll sëñ bas nee na ma ne sëñ Basiru Anta Ñaŋ mii di xalifa borom daaru moo ma moo ma ko nettali nee na ma ne ko sëñ Mahmoudan xanaa gisoo nag fii ay apprenti ak ay jaaykat ak ay ay nangam nangam rek ñoo fi nekk fii àggaguñ ci kër sëñ Fallou ma ne ko basteel ma samay dàll nee na ma téyal ko ay dàllam man sol samay dàll <laughs> kon kooku xam ngeen ne ku kawe woon la ci ak taalib nee na sëñ Bas nee na ma téyal ko ay dàllam ba pare man sol samay dàll nag na àgguñ fi ñuy summi ay dàll xoolal ma jë googu taalibe sëñ Mahmoudan foofu la àggoon ci ak taalibe yaakaar naa suuf si ak garab yi miin na sëriñ Abdul Ahad lool lool lool lool ridwaanullah ali xaritub sëriñ Mahmoudan la woon sëñ Bas nee na da daan jekk-jekk rek ne ne jëyi ñëw ci moom bu ñëwee lu lu mu fekk rek sëñ Mahmoudan jox ko lu mu fi fekk rek mu jox ko soxna Maymunatul Kubra miin na miin na ko yaakaar naa suuf si miin na ko garab yi miin na ko gaa yi baax yépp daanañ ko fekk nit yàlla yëpp daanañ ko fekk nit ñu baax ñëpp ci mbokk yëpp dañ ko fi daan fekk moom sëriñ Mahmoudan ndax ak tabam ndax ak lewetam ak diplomatie am it mu nekkoon diplomate daan defar nag nekkoon puso daan defar mbokk gi daan defar lu bari ci yoon bi te ñu bari yëguñu kooku mooy sëriñ Mahmoudan yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla nañu yàlla taas ci barkeem waaye nañu ko roy nag ñun gone yi ndax yitte ju kawe jooju moo wax ci taxawal lii te ba mu koy taxawal booba kenn jàpputoon ne ko so mën naa taxaw kenn jàpp ko ndax booba nit lum naan amu fi naan amu fi nit lum lekk amu fi ay ay ay rabi àll ak ay garab ak lëndëm ak metti lool lool moo fi nekk sëñ Bass Anta Niang neen waaye sëñ Mahamadan di muñ rek di muñ di muñ di muñ ba ba ba nekk fi waaye kenn jàppute na dana fi mën a nekk ndax tumuraanke gu mett ak jafe-jafe yi ak sori gum sori yi nga xamante ne doomu adama mën koo ñàkk ci dundam waaye mu nekk fi di daan dooleem di jaamu yàlla di jàngale di def loolu nga xam ne moom la sëriñ bi doon def loo muy xidma di ko jox joxe ci yoon yàlla ba àgg fi mu àgg ci yoon wi nga xamante ne histoire du ko fàtteti mukk kon sëriñ Mahmoudan yàlla nu yàlla taas ci barkeem waaye ñun gone yi nag am nañ kon responsabilité bu mag ci wéyal loola ndax léegi ni ma ko waxee rek Abdullah ibnu Abbas da daa bi muy ku bari woon xam-xam la daa daa ñëw ci benn ànd ndoom benn xaritam boobu ñoom ñaar ay gone lañ xale bi ne ko waaye yow ibnu Abbas looy def mu ne ko man damay wuti xam-xam damay jàngi xale bi ne ko waaye yow looy jàngi abu sa sadiq ñoom a ngi fi sa baay a ngi fi ñeneen a ngi fi mag ñaa ngi fi yow xam nga ni fii doo mënu fee doon dara ñëwal ñu wuti métier ñëwal ñu wuti métier abdullah ibn omar abdullah ibn abbas ne damay jàngi waaja dem wuti métier abdullah ibn abbas dem jàngi di jàng di jàng di jàng di jàng ba mujj nekk xibrul mooy lan mooy ki ëpp xam-xam fóore yi Euh, xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Abbas mujj na Irak ak réew yi nga xam ñu wër Madina yépp buñ ñëwee ci ja jumaay Madina ji di laaj ak di jàng buñ ñëwee ñëpp dañ may rang nee na ay rang lañ may def ku jàll maanaam kuréel bu jàng jàll rek beneen kuréel ñëwaat waaje di ko xool ba yàgg mu ne kii day ku am yitte ju kawe ndax ba muy wuti xam-xam booba kenn jàpputoon ne kenn dana ko laaj kenn jàpputoon ne dana tekk dara kon yéen gone yi bu kenn jàpp ne man gone laa rek ëllëg lii fi sëriñ Mahmoudan bàyyi lii fi mag ñi bàyyi kenn ku nekk ci ñun mën naa delluwaat ci say loxo kon bu ñu ko sàgganee ba waajaluñu suñu bopp bis danañ danañu bett boo xamante ne dana fekk waajaluñ ko woon kon kenn ku nekk ci yéen rek na jàpp ne ndonal sëriñ Mahmoudan mi ngi ci loxoom te moo ko war a yanu moo war a gàddu responsabilité bi kon guddi na te jël naa ci temps bi lu baree bari nag suñ Muhammad yàlla ma bind nii nag ma maa yeex ni may waxee te it xam naa xam-xam bi bariwut te lii daal am na ñu ko gën a mën waaye yéen laa ci am maa ngi baalu àq ñépp lu ci manqué rek ci sama ñàkk xam la ak sama lu ci mat it ci tawféex suñu borom la ak ndimbalal Serigne Touba ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkewaat ay jotaay yu bari asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. moo Mahmoudan mooy defe ñaan moom Serigne Bassirou Anta ñaan amiin amiin ak jërë ngeen jëf.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 ngeen woote si 77 251 a